xaari tabaski yi nga xamante ni at mu jot ki nga xam ne moom moo fi nekkal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di xalifaam da koy jébbal xalifa général des mourides nekk na lool lu yàgg la. ndax lu ñuy wéyal la loo xam ni ma nga bàyyeekoo woon ci maam Cheikh Ibrahima Fall mu ko daan jëfal Cheikh Ahmadou Bamba jëf ji nag at mu jot ki nga xam ne moom moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall dana dajale mbooleem xar yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci buntu kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall yi loolee lépp Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend mi nga xam ne général des Baye Fall moom la dajale fas yéene ko yóbbul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalifa général des Mourides ci altine ji dëppoo nag juróom-ñaari fan ci weeru tabaski atum 1444 ginnaaw gàddaay gi doonoon le 25 juin 2023. ndigal lii nag day ndigal lu bawoo si Serigne Touba jëm si Cheikh Ibra Fall ndax Cheikh Ibra Fall la bind ab lettre jox Malamine Diop jaaxeer yónnee ko ki nga xamante ni mooy Serigne Touba laaj ko ndax sañ na maa tabaski Serigne bi ne ko. lépp loo xamante ni gàtt la te ne sa kër dàq ko indi sama kër boo jógee si jullukaay ba loo fa fekk ren di muy sa tabaski loolooy wéy boobu ba léegi képp koo xamante ni toog na fi gannaaw Cheikh Ibra Fall si tàmbalee Cheikh Modou Moustapha Fall si sëñ Mor Talla Fall si ki nga xamante ni mooy sëñ Abdoulahi Fall Ndar Serif Assane Fall ki nga xamante ni mooy sëñ Abdou Sakour sëriñ Modou Aminta Fall maam Cheikh Ibrahima Fall jëmm yal na yàlla dolli seen ngërëm ba si tey jii ki nga xamante ni mooy sëriñ Amdi Fall noonu lañ koy doxalee saa nekk maam Cheikh Ibrahima gi nga xam ne moo nekkee ci jannatul mahwa fi nga xam ne fi la xalif bi nekk muy sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda bi ñu xëyee mboolem taalibe daje nañ fi tàmbalee yëpp xar yi ci camion yi ngir dem yóbbu leen ca daara Hizbut Tarqiyyah gi nga xam ne fa la ñuy yóbbu mbooleem xar yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha lépp nag ñu amal ko ci teewaayu sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Modou Aminte fal ak mbooleem taalibe yi liggéey bi nag sant na ci bu baax a baax mbooleem taalibe yi ci seen ak farlu waaye soññ leen bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk suñu kanam ndax fii mu toog kat ànd naag mboolem njabootu Kër Sëriñ Modou Falilou Fall gi ak soppe yi ak taalibe yi topp ci ginnaaw waajuram wii muy Serigne Cheikh Fall jox ko boppam àdduna ak àllaaxira lu mu digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi ko te soo ko ci dara ndax fii ab liggéeyam yegg kenn tobbali ko aw sas aw fitam rek la aku ngoram aku njàmbaaram ba dajale ñetti téeméeri xar ak juróom-benn fukk. teg ci loxol Serigne Cheikh Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall am Amdi Khady Fall nag day wax ni ku ko jéem man ko moo tax sëñ Fall ni kon dinaa ko jéem te xëccooy tax a dem ragal nag du jéggi waaye moom kon Fall bu ragal ñu laaj ko ko ndax ki wuutu buñ ko sañoon wax dañ naan aw fit ci moom la dëppee kon sëñ Fall loo ngi nii. ñetti téeméeri xar la weñi ak juróom benn fukk teg ci loxol kilifaam Serigne Cheikh Fall mu sëñ Modou Moustapha Fall ak mbooloo njabootu sëñ Modou Aminta Fall gi ànd ko jëwriñ bi Cheikh mu Fall ak rakk ak njabootu Serigne Cheikh Fall Khady Gueye Serigne Falilou Fall moom Serigne Cheikh Fall Khady Gueye ak sëñ Modou Fall moom sëñ Sidi Fall ca kees ñoom ñëpp ñu ngi boot ci ginnaawam waaye siggi na siggi waale mbooleem nag kër yi loolu nag alaaj Hadj Ibrahima mi ngi nii toog di jàmbaar lool di mag lii may jéem a ko wax lu ci bari moom mii de ci moom lañ ko roote moo ko yoroon sëñ Modou Winta àndoon koog moom it ba xañ na doole ji ak kartan gi li tul noonu rek ñu di ko ci jéem roy kon ñu maa si déglu sëñ Fallilu li muy teg ci loxol murit yi ci liggéey bii ñu liggéey sëñ Touba ak lu mu leen di soññiwaat ba ku ci bokkul woon jéem wuti am xar sëñ Fall looy wax murit yi. murit sëñ bi neen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nee na yéen ñii fi teew nee mënut lim seen i tur de waaye yéen de yéenay presse bi nga xam ni di sëti sir di sëti sëñ Touba yi di sëtub sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall waaye kon bu ngeen fi dajee nag man ngeen seet booloo yéen ñëpp def seen jëwriñ muy sëñ Ablaye Ndaw ndax sëtub maam Cheikh Ndawa de. moom maam Cheikh Ibrahima Fall te maam Cheikh Ndaw itam nee na jëwriñam ja mooy sëñ Babacar Ndaw de kon bu ngeen àndee mën ngeen a sàkk jëwriñ de kon sëñ Ablaye sëñ baa ngi jottali kàddu nuyoo yoo xam ni mi ngi bàyyi ko ci sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye nag kon ca kàddu jëwriñam Serigne Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng sëñ baa ngi jottali nag kàddu yoo xam ni kàddu yu nuyoo la yu cant ak kàddu yu ngërëm ci liggéey bii mooy liggéeyal maamam ca tabaski yi teew nag ndax bari na yu jàll lool te mel na na ko sëriñ bi bëgge waaye bii teew nag mooy liggéeyu tabaski yi nga xam ne tabaski moom ne lu jullit gàtt gàtt xam-xam dégg na la sabab tabaski sunu maam Ibrahima moo ñaanoon yàlla sunu boroom mu may ko doom ba mu ko maye doom mu may ko doom ju góor muy sunu maam Ismaahila waaye lam koy neex neex ndigal ñëw na ca kawam loo xam ni ndigal la moo ko gën a neex. mu bànneexoo ko ne mu mu ni ko ko nan ko bokk moo ñam ko bokkaloon muy soxna Ajara ak sunu maam Ismaahila xam nga ren de sa doom ji El Hadj Ibra Dia ne kun ko wax dey te ki la ko wax caaxaanul mel na ni dina diis lool waaye moom nag du ko bégge woon de ca kaw ndigal loolee mu ko bégge nag ne ci la sama borom joxe ndigal yonent bi sallallahu alayhi mu joxaat ndigal Seydina Jibril ndar ko yebal ca àjjana ni ko demal jël fa am xar mu baax indi ko foofee fa Ibrahima doomam joojee mu tër bala koo paaka ba de laal na ko dindi tër fa xar ma te lum gaaw gaaw nag ak lum yeex yeex bu loolu amul dana ko folli ci nguuru suñu borom gi waaye nag kon ci kartalu yàlla nag ci la baaxee Seydina Jibril mu daal di dem àjjana jël fa xar mu baax sëñ Ablaye Ndaw fan tëraloon Ismaahila mu mu tëdd ñu te mu takk bët ya ngir yërmande waajuru baax wa xam ni ndigal la mëntu ñàkk waaye ba yàlla dogalee xar ma ñëw ñu roon ko fa Ismaahila tëddoon daal di tiri Ismaahila mais ba ko defaree ba siggi yàlla suñu borom xool. ñoom ñu xool. mu doon am xar. loolu jaaxal ni lool. ci kartalu yàlla ga nag. nga xam ne man mën na lu ne. ne ñoom ñooñee nag ñu ànd sant yàlla ñoom. ci li leen yàlla digaloon. tan nangu woon koo jëfee. te fasoon ko yéene jëfee. waaye li yàlla indi ci yërmandeem. ci kartalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jote ko jaam ñëpp. indi fa am xar nee waaye dugul ko nag loolee kon ñun ñii di ay doomu aadama sëñ Ablaye Ndaw kër gu nekk kay taaw kër ga mooy doon xaram tabaski ma te kon lool dinañ ko nangu lool te du araam waaye sa borom nag moo nu yërëm ci kàttanu sallallahu alayhi wa sallam ci addu jot ñu ñu itam liggéey bii Serigne Touba di liggéeyloo Cheikh Ibra Fall. te jëwriñam jii di Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda. ak jëwriñam jii di Serigne Cheikh Fall moom sëñ moom sëñ Modou Moussa Fall. ak rakkam yi mbokkal Cheikh Ibra Fall yëpp. ak doom yëpp. ak murid yëpp. ànd nañ ci ak moom. bégge ko. sawar ci lool. ba fi mu ne xar yaa ngi nii ngay gis. sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda Fall dajale na ko ci turu maam Cheikh Ibrahima Fall bokk ko ak njaboot yëpp ak murid yëpp bëgg koo jébbali nag borom Tuubaa Xaadimu Rasuul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké muy junni xar ak téeméeri xar ak ñaar fukki xar loolu ci waxi tubaab sëñ Ablaye Ndaw mooy mooy mille cent moo jóge kër Cheikh Ibra Fall jëm kër sëñ Touba ca bokkut la daan dem njaareem nga xam ne ba fa ku baax ka nekkee Cheikh Ibra Fall di ko yót ñaar fukk loon ak juróom-ñett loola ba tey sëñ Ablaye Ndaw noonee ñu ko daan saxale nee noonu lañ koy amale ba tey sëñ kon nag murid yi sëñ baa ngi sant ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ak ndaw ñi ñi nekk ci biir réew mii ak ñi nekk bitim réew muy ñu yaakaar Cheikh Ibra Fall yaakaar Serigne Touba di soppe di wóllëre kenn ku ci nekk sa loxo tàbbali ci liggéey bi ñii joxe nañ njëgu xar ñii joxe nañ njëgu ay xar ñii joxe nañ ay xar kon nag Cheikh Fallou nee na Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla sunu borom nii ñu bokk def. yal nañ ko gën a man lool te yàgg ko jëfe lool ci barkeb sëriñ bi sëñ bi nag sëñ Ablaye Ndaw mi ngi soñu boppam di soñ it mbooleem ku yaakaar sëriñ Touba wala nga yaakaar Cheikh Ibra Fall ci ndigalu sëñ Touba li nga xam ni ñëw na kër Cheikh Ibra Fall ten bokk ak ñëpp muy war may Touba ji sëñ baa ngi yëgal nit ñi ni leen ndigal li agsi na ci moom nuyu na ñëpp de. yëgal na ko ñëpp it. fas na yéene ba tabaski yi jàllee. ndigal li dinañ ci jëm de. buñ ci jëmee nag. sëñ bi day lorluwul kenn moom. dumaluwul kenn it. génnewul kenn. waaye ndigal lii nag moom la bëgg. muy warma Tuubaa ji. képp ku ko man nga ànd ceeg moom ci nekk ci na nga fi nekk woon koo xam ne mënoo ko nag ñi ngi lay yëgal ndigal li te xam ne bu nu sa kaw da nga abal sëriñ bi barab bi nga nekk ci li mu bëgg de ca nekk ci li mu bëgg nag moo nii mën a may li mu bëgg de ndax ñun de dëkk bi dara waruñu ci xanaa ñëw toog fi rek dëkk bi kër la muy kër sëriñ Touba kër nag. ca borom bëgg. la ca borom bëgg. képp ku fa bëgg a nekk. da nga cee ànd ak moom. waaye sëñ bi kat. yéene na fi ñëpp jàmm. yéene na fi ñëpp jàmm. yéene ñëpp mucc. yéene ñëpp ay xéwal. waaye lépp luy lore moom. ba lépp luy sonle. sëriñ bi ñaanul yàlla teg ko kenn. waaye lépp li mu bëgg nag. la bëgg ñëpp maase ànd ceeg moom. buñ ko defee. dina noppalu tey. dina noppalu boo ëllëgee. kon yàlla na yàlla suñu borom dimbali. ci daraje maam Cheikh Ibrahima Fall. ba ndigal li Serigne Touba digal Cheikh Ibrahima Fall. mu nooyal suñu xol yi. man loolu ko. ban jëfe ko nam ko bëggee. kon nag murit yi. ndigal laa ngi noonu yi. lii moom mel na ni. xanaa kon nan la wax ni sëñ Ablaye neel murit yi déwénati. ndax tabaski maam Cheikh Ibrahima Fall yii. bu demee ci Serigne Touba. murit yëpp tabaski nanu kon fi ne kum neex boo amee njëgu gileem demal wuti ko baa nga de wuti aw nag baa am xar baa bëy baa ganaar ñun fi ne sunu yoon nekkatul ci ay tabaski ndax ginnaaw jox nañ sëriñ bi wàcc nañu waaye bépp taalib boo xam ne nag sa yaakaar daa ne ci Seex Ibra Faal nga dégg ndigal li am am xar rendi ko fa sa kër sa yëpp laay ndaw ca joxu woo Cheikh Ibra Fall menn xar loolee ngay rendi ndawal dong nga am nee bu ñu joxee sëñ bi daal tabaski nanu waaye bu kenn am lenn tër ku ci sa kër ko yaag sa njaboot ba ñuy jox sëñ bi dara loolu baaxul kon nan koy waajal ku ko bëgg a jekku bu déwénitee murit bu nekk yar xar mu baax jébbal ko Cheikh Ibra Fall mu jox la ko Serigne Touba. ndax lii muy wax kat. nee na jàmbaar ju baax ja Cheikh Modou Falilou Fall. waxoon na ci làmbañe wu tedd ba nii. sëñ Mor Talla Fall. moom na tàggu woon dem Dakaaru. mën ngaa dem te ñëw. mënu ko mën ngaa dem ci ñëw. waaye sëñ Modou boo demee. waaye sëñ Modou Aminta boo demee. na nga soññ ñëpp. na nga ñëpp. te xamal leen ni. te leen ni. xar yii ñuy def ci suñ yii ñuy def ci suñ kër yi. yi ñuy def yi def ci kër sëñ bi moo ko gën a war. te lan waxoon suñu digganteeg sëriñ bi buñ ko fàttee. kenn ku ne ngaa waxoon sëñ bi ni ko jébbal naa sa bopp àdduna ak alaaxira te àdduna wóorul. kon nañ ci góorgóorlu baax. nan koy waajal Baay Faal yi. buñ ko waajalee. den ko man kon sëñ Ablaye yaa ngi murid yi nga àndal nee leen mbooloo mi sëñ bi nee jërë ngeen jëf. seen rajo yii. fu Cheikh Ibra egg ak turam yàlla na fa saa borom eggale seen liggéey bi yéen presse bi tabarkeel ko nag te dimbali murid yëpp nag ba lépp lu sëriñ bi bëgg yàlla na ngeen ko gën a man te yàgg koo jekku yàgg koo jëfee nee jële ngeen jëfati sëñ bi nee xolam seet na bu baax ci mboole murid nag góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew mi nga sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp nee jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu wàññee xar yi ba lim bi mat ba ñu yóbbu lépp ca daara Hizbut Tarqiyyah ni nga xam ne noonu la ko Serigne Mountakha Mbacké santaane la kilifa yi bàyyeekoo fii ci Jannatul Mahwa ñoom ñëpp àndandoo ci njiital Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou aminte Fall ànd ak mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi jëm ca daarul minan gi nga xam ne fa la ñuy fekk Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides fas yéene koo jébbal liggéey bi mu toll ci junniy xar ak téeméer la la la la La la la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 فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله bi ñu agsee fii ci Daarul Minan mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teewoon ñoom ñëpp ànd nañu ci ginnaaw Serigne Cheikh Fall ñu gën koo min ci Serigne Cheikh Ndiaye Meng ñu ñëw ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou jébbal ko addiye ji ziyaare ko leeral ko lépp loo xam ne moo jëm ci xaru tabaski yi nga xam ne lim bi mooy junni ak téeméer ak ñaar fukk sëriñ Fallou Fall moom Serigne Modou Aminta Fall yëkkati kàddu yi nga xam ni moo bàyyeekoo ci Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend mi nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall. Serigne Fall lu mooy jottali kàddu sëriñ Cheikh Fall mi nga xam ne mooy bopp yoon wi. nee mooy moo yebal si rakam ju tedd ji di jëwriñam. ñu koy wax sëriñ Cheikh Fall moom sëñ Modou Moussa Fall. waaye ñu gën koo xam ci sëriñ seex Ndiaye Mbeng nee na mooy jëwriñam de yor aw làmmañam di kàddoom boole kook rakkam yi tedd yii Serigne Cheikh Astou Ndiaye ngi nii toog sëriñ Mor Talla Fall ngi ni toog ak ñi nga xam ne ñëwuñu ci seen addi yi ñëw ay rakkam ñëw ak nun murit yi nga xam ni ñoo fa yéene ànd ak moom ci liggéey bi mu la bëgg li la liggéeyal nee na liggéey bii moo fi indi tey nag Mbàkke mooy addi ji nga xam ni moom la Cheikh Ibra Fall daan jox sa maam muy liggéey tabaski yi mu jëm si fii ci yow nga xam ne mooy liggéey bu mag bi nee na junni xar la ak téeméeri xar ak ñaar fukk teewul nag la daan dem njaareem nga xam ni foofu la ko Cheikh Ibra daan yóbbu muy ñaar fukki xar ak juróom-ñett loola dem na njaareem nee na addi ji muy joxe nag sëriñ am dañ ciy jiital yeesalaat ak njébbalam ak pas-pasam ak mboolem yoonu kër Cheikh Ibra Fall wépp di bëgg nag ci addi ji. boo ko nangulee muy ñaan suñu borom mu yàggal la fi te wéral la ba li nga yéene liggéeyal sa maam liggéeyal sa waajur bu baax wa liggéeyal ko lislaam mbàkke nga def ko na nga ko bëggee te ànd koog nun murit yëpp waaye murit nag ñi ngi dellu di ñaan ci addi yi ji ñu fi indi kii ko fi indi muy sëriñ di Faal moom sëñ Moodu Mbend Faal sunu borom mbàkke gën ko fee yàggal te wéral ko ba lim yéene ci liggéeyal la ko sunu borom defal ko ko cam ànd koog waa kër Cheikh Ibra Fall gépp ànd koog murit yëpp xolam daal seet na ba baax mbàkk ci liggéey bi nee na ñii nga ko booleel muy waa kër Cheikh Ibra Fall ñii muy rakki boppam yu tedd yi ak murit yi mu àndal yëpp mbooleem waa réew mi ñi nekk ak waa diaspora bi muy bitim réew liggéey bii mi ngi lay séeréel moom ñoom ñoo ko ànd ñëpp jàpp nañ ci nee ci seen ndimbal rek la ndimbalam sa ndimbal yow mii nee ci leen ko defee nag kon nag ñi ngi sàkku nga dimbali nu ban gën a jekku ndigal yi te yàgg la koo defal bu baax a baax nag fas yéene nag la nga ñu digaloon noo nga ca de muy war may tuubaa ji fas nañ yéene daal ni nga ko bëggee sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbene nee na dina ko ne defee nee kon nag mi ngi yëgal ñi nga xam ni ñoom la bokkal liggéey bi ca nekk ci Touba ba nekkuñu Touba itam ca seen yaakaar ne ci Serigne Touba ndigal lii ko sëriñam jox mu fas ko yéene ànd ak ñoom na nga nooyal xoli murit yi Mbàkke nooyal xoli jullit yi ba li Serigne Touba bëgg ñu man ko te jëfe ko ndax loolu rek moo nu jariñ fii moo nu jariñ it fan jëm kon nag Mbàkke jërëjëfati Cheikh Falilou nee na mi ngi sant cay jéggulu ndax kàddu yi mu yëkkati kat day kàddu yu ndigal rek waaye du kàddu yu war de ndax ab taalibe bi moom bu nekkee fi kanam kilifaam moog ab néew ca loxoy way sang ya ñoo war a bokk ab àtte wartu am fenn fu muy jëm baa fu muy bañ baa lu muy bëgg ñun day bu la gisee suñ lépp àgg na ci yow kon noo ngi jéggalu kàddu bu baax a baax tey ñaanaat nag ca darajey samaam ju baax ja ak taalibeem ba muy maam Cheikh Ibra Fall suñ borom daal mbàkke yàlla la fi gën a yàggal yàlla nga gën a wér ba noo ko bëggee nga defe ko ni sa dund gii yàlla nay muux ji saatu yoon wi na ko ñëpp yéem rek ak ci lépp ànd ko wér nag ànd ak jàmm nee jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke kàddu yi sëriñ Fallou yaa ngi noonu. Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides sant na bu baax a baax Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou mbend di xalif général des Baye Fall ci jëf ju kawe ji nga xam ne jëfati na ko te lépp bàyyi ko ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi mu jëm ci xaru tabaski yi sëriñ bi sant leen gërëm leen ci farlu gi ak yitte ju kawe ji waaye salaat ndigal li nga xam ne moo jëm ci wormaay dëkk bi nga xam ne jëbbal na ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi. mu ne kàddu yi doy lépp. sama xel ak li sama xol lépp kàddu yu. mu ne kàddu yi li ci xelam ak li ci xolam lépp kàddu yóbbaale na ko. cant gi ak ngërëm li moom mu xajul ci làmmiñ bi. mu ne cant gi ak ngërëm li ci làmmiñ bi. maa ngi maa ngi gën a yeesal sama jaayante bu baax. mu ne mi ngi gën a yeesal jaayanteem bu baax. ci gàddu Sëriñ Fallu yi. ci Fallu Fall mii. di gën a feddali sama laxasaay. di gën a feddali ay laxasaayam bu baax. ci ci ci fas yéene koo mu ne fas yéene koo gën a ànd ak yéen. sax dàkk ci liggéey mu ne sax dàkk ci liggéey bi. ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax a baax. mu ne ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax. kaddu yóbbaale na lépp. mu ne kaddu yóbbaale lépp. dégg nañ ko bu baax a baax nañ ko bu baax a baax. jërëjëf mu ne jërëjëf Fall. jërëjëf jërëjëf Fall. jërëjëf eh, yi mu boole ci dëkk bi nag. mu ne kaddu yi nga boole ci dëkk bi nag. loolu moom itam nañ ci bu baax. mu ne loolu loolu itam toll nañ ci bu baax a baax. dox ba agsi mu ne lu dox ba agsi rek la. loo xam ne ab la. mu ne loo xam ne ab tàmbali la. tey day wéy di mu ne tey day wéy di wéy. mooy sàmm xormay sëriñ bi. mu ne loolu mooy sàmm xormay sëriñ bi. sàmmal ko xormay dëkk bi. sàmmal ko xormay dëkk bi. mu ne lool doon ab tàmbali boo xam ne. fan ko séentu. mu ne fañ ko séentu. dëkk bi. ci dëkk bi. dëkk bi daa am war mu ne dëkk bi daa am war may boppam. ndax kii ndax boroom liggéey bu rëy bii fi nekk. ndax borom liggéey bu rëy bii fi nekk. Eh, kon eh, eh, sàmm warma ji. mu ne kon sàmm warma ji. sàmm sàmmal ko warmay dëkk bi. mooy sàmmal ko warmay dëkk bi. gën a gën a gën a gën a gën a jug nag. mooy gën a jug nag. a gën a jublu ci sa ci ci sàmmal ko lépp. mu ne gën a jublu ci sàmmal ko lépp. mu ne loolu. fañ ko séntu. fañ ko séntu. dëkk bi daa daa daa war a moom boppam. mu ne loolu fañ ko séntu dëkk bi daa war a moom boppam. foofu la jëm. mu ne foofu la jëm. mu ne loolu ab tàmbali rek la. mu ne waaye mën naa doon tàmbali bu mat sëkk. mu ne tàmbali boo xam ne day wéy di wéy. ba mu àgg fa mu jëm. mu ne fa mu jëm nag. mu ne fii ci kaw suuf. kenn amu fi. loo xam ne la nga am sëriñ bi moo la ci gën a yey eh, mu ne dafa am réew mu ñuy wax Italie eh, capital ba di Rome eh, mu ne kilifa diine ga fa nekk fa mu nekk mu ne foofu mu nekk am na indépendance am total mm, mu ne léppam moo ko état boppam la yor la mu am. mu ne te kooku la mu am. gën caa gën mu ne gënu caa yey Serigne Touba. kenn gënu koo yey kenn gënu koo mu ne Serigne Touba kenn gënu koo yey ci boromam. kon nag alhamdulilah Serigne Fallou ginnaaw foofu la dëkk bi mu ne kon alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw Serigne Fallou foofu la dëkk bi jëm. ndigal laa ngoog nañu ànd ak suñum xel ànd ak suñu sago sëñ daam sooda mu ne sëriñ daam sooda mii waxoon na ko ko mu ne ñi fi yàlla teg ci saayir si bu leen réeroo ak ñoom mu ne ànd leen ko ak ñoom mu ne borom liggéey bu rëy bii mu ne liggéey na liggéey ba mu agsi fii xat dammul deret tuuruwul kon nag kon nag li ñu bëgg li ñu bëgg rëy na lool rëy na lool waaye yomb na suñu borom waaye yomb na suñu yombalal na ko it moom sëriñ bi kon nag nanu nanu nanu nanu nanu nanu jugaat bu baax mu ne kon nañu jogaat bu baax def suñu xel ci def suñu suñu xel suñu yëpp ci dëkk mu ne def suñu xel yëpp ci dëkk bi ndax borom dëkk bi eh, def ci suñu jëpp def suñu def ci suñu yitte jëpp gën sàmm. ndax dëkk bi gën a gën a sàmm. gën a gën a set. gën a set. gën a gën a gën a leer. gën a leer. gën a sell. gën a sell. mu ne suñu yitte jëpp nañ ko def ci dëkk bi. mu ne ñu xam ne lu jot rek am. kon jublu dëkk bi rek. mooy jubloo war ma dëkk bi. mu ne jot na. su ñu xel ak suñu yitte ak suñu jublu lépp nay dëkk bi rek mu ne loolu mooy saayir si bokkut ak baatin bi baatin bi moom. suñu xel demee ci maam Cheikh rek. mu ne bu suñu xel demee ci maam Cheikh Cheikh Ibra rek. mu ne mu doy ñu ak soññu. waaye saayir si nag. mu ne in fokk ñu yëngatu. mu ne kon noonu la demee. nañu gën a lu baax. incha allah incha allah li ñu bëgg. Eh, bëgg ko ngir sëriñ bi. mu ne bëgg ko ngir sëriñ bi. bëgg ko ngir ngir ngir ngir ngir bu rëy bii. mu ne bëgg ko ngir cërëm bu bii. cërëm bu rëy bii nga xam fii ci ci àdduna la tàmbalee jëm ëllëg ga ñu jëm. mu ne cërëm bu bii nga xam ne fii ci àdduna la tàmbalee jëm ëllëg ga ñu jëm. mu ne nañ ci def suñu yitte. suñ kéem kàttan. dañu ko yóbbal fa ñu bëgg. kon alhamdulilah rabil alamin mu ne kàddu sëriñ fàllu yi ni mu ko waxee woon rek yóbbaale na lépp mu ne loolu rek la ci dolli mu ne ñoo ngi am mbégte mu rëy rëy mu ne ci seen teewaay bii mu ne mu sori ci moom lool mu ne sedd xolam guy mu ne soññu ci lu ñuy jariñ bégal ñu ah, mu ne loolu ñoo ngi lay koy seeral bu baax mu ne lekk ci xolam mu ñu ko génne ci làmmiñam waaye yàlla mi ko def ci moom te defal leen ko mu ne moom xam na ko mu ne borom liggéey bi nga xam ne mu ne lu nekk ci ñun moo tax mu def ko ci mu ne borom liggéey bi xam na ko kon nañu góorgóor lu baax nañu góorgóor lu baax te yi rek bu ñu gis dara. bu ñu gis dara. lu dul jëmmam jëm ju tedd ji. lu dul jëmmam ju tedd ji rek. nay suñu nay nay nay nay nay nay suñu wommat. mu ne nay suñu wommat. di di di suñu so di suñu soññ. di suñu soññ. loolu nay suñu jublu rek. mu ne nay suñu jublu rek. mu ne ñu sax ca dàkk. xam ne xam ne moo moo moo moo mu ne ñu xam ne moo yor wommat gi. la ci am solo rek. na loos bi yolom. na loos bi yolom. ban gën gën a mën ban gën koo mën a topp. bañ gën koo mën a topp bu baax a baax. jërëjëf Fall ni mu ko waxee woon rek. mu ne li nekk ci xelam mënu koo yëkkati ay kàddoom. jërëjëf Fall jërëjëf Fall sëñ Moussa. su weesoo junni xar ak téeméer ak ñaar fukki yi nga xamante ni moom la sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda jébbal ki fi nekkal sëriñ Touba am na yeneen ñaar fukki xar ak juróom-ñett yi nga xamante ni at mu jot dañ koy wéyal muy lim bi nga xam ne moom mooy dem ca njaareem muy limu xar yi nga xam ne moom la fa maam Cheikh Ibrahima Fall daan yóbbu. ginnaaw bi ñu jébalee liggéey ba noppi mboolem Baye Fall yi delluwaat ci ndigal yi nga xamante ni mooy bàyyeekoo ci kër Serigne jëm ci kër maam Cheikh Ibrahima